Bonsoir chers internautes du KSTV merci encore une fois de nous recevoir chez vous c'est toujours un plaisir euh, dalal leen fi nga xam ne moo di suñu chaîne alors comme nañu koy defee chaque semaine euh, waxtaanee lu jëm ci wàllum actualité dalal benn invité jàngat li nga xam ne moo mujj xew ñeel langum politique bu Sénégal alors tey nag ñuy dalal ki nga xam ni euh, moo di Ben Makhtar Diop qu'on ne présente plus donc le grand journaliste tey moom la ñuy fas yéene sekkal waxtaan ci dernier rebondissement yi nga xam ni am na ñeel. kon euh, politique bu Sénégal comme ni ngeen ko xamee lu jëm également ci arrestation euh, Bah Diakhaté Imam Ndao ak également euh, li nga xam ne moo tukkee démb ci conseil des ministres les décision phares yi nga xam ni président Bassirou Diomaye fay mais également le premier ministre Ousmane Sonko jëlee nañ ko ci dinañ ko décortiquer un peu daal di ciy ñëwaat ak jàngatu ki nga xam ne moo di benn Makhtar Diop comme ni mu leen ko waxee tey moom la ñuy daal di dalal alors laataa ñuy sóobu ci waxtaan bi dañu koy nuyu su ko defee nag ñu daal di yaatal donc benn maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay soxna Mariama di nuyu ñu ñuy seetaan euh, ci banlieue dakaroise bi yëpp euh, am mbégte si choix bi yaakaar na que ni itam ah fi ñu may xaar danaa ko mën parce que wax nag si réew mi dafa dafa yombatul. waaw te ñi ëpp lu ñuy wax ñoo ëpp xam-xam. Mm-hmm. ñi noppi c'est parce que xam nañ seen xam ba xam-xam barewul comme sama genre bi. waaw. mais mais c'est sûr que ni euh, choix bi lu ñu lu ñu lu ñu jàngat la bu baax a baax moo tax tey ñu ñu dalal la alors euh, très rapidement euh, Ben Diop pour dugg ci waxtaan bi li nga xam ne mooy mujj xew moom la ñuy taxaw un peu muy arrestation Bah ak li nga xam ne moo di Imam ndaw alors connotation politique bi nga xam ne def nañu ko parce que gis nañ ni yëf lañ ko mujjee def mu mel ni genre sandante bal diggante APR ak ñi nga xam ne ñoo di waa Diomaye di waa Pastef devrait en arriver là est-ce que waruñu woon bàyyi justice def liggéeyam ba parti bu ci nekk nga neutre xool euh, yoon nan lay doxalee euh, liggéeyam par rapport ak ces arrestations. waaw xam nga lu mu si mënti doon euh, la connotation politique elle est obligatoire parce que Bah Diakhaté itam ñu bari dañ jàpp ni que ni waa APR lay lay liggéeyal Benno Bokk Yaakaar est-ce que am na carte APR wala déet mënuma prononcer wu si loolu parce que gisuma ko man dama ko xam en tant que daal koo xam ni. dina nekk sur réseau réseaux sociaux yi di def des révélations euh, maintenant euh, l'opportunité nag et bonne l'occasion faisant le larron waa benn Bokk Yaakaar notamment l'APR depuis le départ du président Macky Sall xëy na ñu ngi doon wut benn os à ronger pour mën a rebondiraat surtout que temps yi ñu ngi leen di tam dëmm lu nekk ñu wax que ni ñoom ñoo ko def ci wàllu audit yi donc lii c'est une occasion pour ñoom ñu exister politiquement dellu soit au devant de la scène moo tax nga gis si ku si mel na le porte parole Seydou liggéey mu ñëw taxaw Abdou Mbow bi nekk président groupe parlementaire ñëw taxaw ak ñeneen ak ñeneen euh, kon mënuñu dindi la connotation politique mais lu mu si mënti doon foog ñu jàpp leen justice euh, mën nañu nekk si mbedd mi wax lu leen neex def caravane ñu yooxu ñu sànni leen lacrymo grenade lacrymogène mais boo duggoo duggee ci bureau kii di juge bi moom xamul parti bi nga bokk xamul parti bee nga bokk fee yi la lay tegal day ñëw tegal la vidéo bi nga wax mu ni la lii moo tax ma jàpp la lii moo tax ma wóolu la est-ce que li nga wax da nga ciy dellu est-ce que li nga wax wóor na la boo ko ne li ma wax maa ko wax vidéo bi man la mën nga taxaw itam ni vidéo bi du man parce que am na ñu ko fi def euh, boo nee du man ñu jéem a authentifier wut expertise bi boo nee man la ñu la wax d'accord indi preuve yi parfois preuve yi mën nga ko indi sax fekk moom moo lay dugal moo doon ci kaawu Ousmane Sonko ak ma Mbaye Niang bii itam ba jaxate dama si jël benn exemple kaawu colonel Kébé colonel Kébé le 19 ou le 20 mars 2019 ou 20 journal L'Observateur génne nañu ci seen une lu jëm ci colonel Kébé ñu ni général jëm si yàlla Lamine Cissé dafa bindoon ci moom ne nañ ko radier de l'armée parce que dafa am ay soldats voilà est-ce que loolu am na wala amul yàlla moo xam mais biir armée ku ko xam-xam ni tout est confidentiel bu baajaxate génne loolu teg ko sur la voie publique dinañ ne que ah ce n'est pas encore tombé dans l'espace public parce que dafa am benn durée de vie pour mun a tomber dans l'espace puisque tombé gu fa ni nga def ba am document yooyu kon recel de document administratif confidentiel nga def loolu mën nañ ko si toppewaat beneen bi boo nee diw mii góor jigéen la da koy accuser nit nga toucher écorner sa dignité son honorabilité ce n'est pas puni par euh, la loi Sénégal mais moom dafa dem ba ci acte contre nature bi nga xam ne moom la ñu punir ni diw mii kat tëdd na sàkku na diw mi ba sax indil ko ay lésion anal su boobaa dañ naan la ana rapport médical bi ko wax fan nga ko gisee donc mu nekk benn bataay boo xam ne ci wàllu yoon la ay avocat am taxaw wax ak moom maintenant nag gis naa si euh, lenn lu mu ci dugal nee na ba mu koy wax boobu fekk na ñoom Ousmane Sonko ñëwaguñu au pouvoir est-ce que kon kenn prescrire les faits par rapport ak loi d'amnistie bi fi amoon muy benn le deuxième élément mooy bu ne moom du influenceur lanceur lanceur d'alerte la te lanceur d'alerte yi président Diomaye Faye nii dañ leen war a protéger xam nga yëpp ay prox ndol la yu ñuy di dugg euh, li ma wóorul itam mooy émission bi mu def ak suñu sœur Penda Badji est-ce que loolu daf ko def ci semaine bi ñu génn su boobaa dootul dugg ci loi d'amnistie bi yooyu yëpp ci wàllu xeex au plan juridique ay avocats ñoo ko war a mëne mais nag dafa am un volet politique te volet politique dafay laaj riposte politique moo tax APR dugg si euh, de l'autre côté itam euh, waa benn waa Pastef ñëw commencer di riposter di répliquer parce que ils ont compris que ni waruñu bàyyi li nga xam ne moom mooy le champ politique à l'opposition la nouvelle opposition la néo opposition xam nga damay di wax ni waa Pastef dafa am erreur yu ñu def ci nomination yu ñu mujj def bi ngay ñëw ci loolu laa doon liggéey. Hmm, ku mel ne El Malick Ndiaye dafa baax ci wàllu communication am ci ay entrées dans les médias sénégalais gaa ñi respecté ko de par ni mu yiwee de par ni mu correcté de par ni mu respecté ak ni mu joxe cër doomu aadama mu dem ba am carnet d'adresse média bu mu ci mënti doon médium bu mu ci mënti doon journal bu mu ci mënti doon télé rajo site internet euh, journal El Malick am na fa ay nitam yoo xam ne da ngeen seq àdduna ngeen respectante kooku logiquement dañ ko waroon jël jox ko la communication de Pastef du directeur gouvernement keroog bu mu demee Tivaouane la preuve dafa feeñ tout de suite parce que dafa wax ñëpp ni gongo euh, parce que da booy def communication euh, danga war a nekk nit ku laab biir nit ku nit ñi bëgg nit koo xam ne que ni sa sa voix day porté euh, contrairement ak ki nga xam ni moom moo nekk le porte-parole du gouvernement xëy na am na ci lu mu ay mais ci communication El Malick moo ko waroon jël mais loolu itam am na pourquoi ñëw bu El Malick infrastructure am na beneen explication loolu nañ si dellu si beneen yoon beneen bi mooy ku mel ne dàmbuj daam dafa nekk koo xam ni fer de lance la woon ci combat médiatique ak bataille d'opinion bu Pastef euh, ndéem sax amul carte bu Pastef mais le fekk que ñuy def ko tey directeur général centrale syndicale ba mu bëggoon teg dootu ko mën teg daam devait se rendre à Richard Toll Euh, compagnie sucrière sénégalaise euh, le 8 juin si je ne pour dem euh, jël fa presque 6000 travailleurs enrôlé leen si centrale am mais tey lu fekk mu nekk directeur général il est obligé muy toog dem ñaaju di liggéey parce que dafay am feuille de route boo xam ne daf ko war a top donc côté boobu laa nii Pastef ci wàllu communication casting bi c'est vrai ñu promouvoir ay nit un Pape Alé daf leen doon jàppale mais tey directeur général RTS am na yoo xam ne mënatu ko Ngagne Demba Touré il était excellent tey directeur général SOMISEN il peut plus parce que déjà conseil de ministres nee nañu dañu war a auditer euh, càmbaraat convention yi c'est un homme de droit il est obligé yooyu moom mu ànd si ak Birame Souleye Diop pour def liggéey boobu donc euh, li si des nag Amadou Ba boo xoolee moom moo def sorti démb pour contrer euh, ñoom Seydou Guèye mais Amadou aussi assemblée nationale lañ koy yóbbu. moom mooy remplacer ji Birame Souleye est-ce qu'il va devenir président du groupe parlementaire ou pas loolu seen cuisine interne la mais dañuy di seetlu Sénégal ñi si ëpp bu ñu leen falee ci yenn poste de responsabilité tout suite engagement bi ñu amoon auprès des médias dafay xaw wàññeeku pour que médias yi jotati leen sax problème lay doon moo tax Pastef foog ñu xoolaat ci wàllu communication ban pool bu bees la ñuy am indi de nouvelles têtes yoo xam ne du ñu ñëw pour être dans la déconstruction mais dañuy ñëw pour être dans la communication expérimentale dans la communication explicative yooyu yaakaar naa faw ñu liggéey si au besoin nañ ko wax nag ñu ñu infiltrer yenn médias yi quitte même à créer de nouveaux média pour pouvoir porter le projet PASTEF expliquer que li xam moom mooy sénégalais yi. d'accord euh, euh, euh, yi. moo ko euh, fa la jógee en tout cas la tàmbali. Hmm. est-ce que jàpp nga ni ak euh, visite Mélenchon bi suñu pare na euh, coowal ñaari tur yi pare nañ réellement xaw ma dañuy criminaliser. Hmm. xaw hmm. mais li ma wóor ba wóor ma mooy Sénégal fii ñu toll ci wàllu diine ñun. demuñu bay bëgg sax pare góor ak góor. waxuma la saydi ñuy génn koñ ba ñu dëkk bu ñu fa génnee bu leen neex suñu bañ ko criminaliser mais koñ boo dëkkee ci koñ góor ak góor di fa génn nit ñi xam ko ñoom ñooy régler seen problème jigéen ak jigéen dem ni dañuy def naka sodul noonu waa koñ ba ñooy régler seen problème parce qu'il y a une vigie citoyenne et religieuse donc côté boobu pour man c'est un faux parce qu'on avait ak le de Macky Sall récemment coow li nga xam ne Sonko am na ko avec sa réponse bi nga xam ne peut-être satisfaire ñu bëri devant Mélenchon jëm ci cette question là est-ce que jotul réellement ñu ñu taxaw tëggaat xool benn loi boo xamante ni ñu ko tëgg bu baax a baax ngir euh, lu jëm ci ñaari tur ñu ñu tege ko ko une bonne fois. soxna Mariama. Mm-hmm. Mm, gémmiñ bu waxul dëgg wax safaan ba. Mm-hmm. Ousmane Sonko. Mm-hmm. naataangoom ca France. bu Mélenchon naataangoom ca France borom ñaari tour yi la mooy atal te atal moom dafa am far moom buy wax kooku la war a waxal bu doon invité kooku la waroon invité man je me demande c'est quoi la pertinence de l'invitation de Mélenchon au plan politique Sonko loolu moom la engagé mais boo xoolee bi mu waxee pare français dañu ñoom duñ si tontu parce que Sonko a dit deux fois que nii moom il ne parle pas en tant que président premier ministre il parle en tant que président de PASTEF muy benn le deuxième élément xëy na bi mu nekkee député moom il parlait de criminalisation de l'homosexualité projet boobu la porté woon li gënoon simple si wàllu communication moo tax man ne nit loo ay ay ay demal seet ku ku aay ci benn domaine mu ñëw encadré la man tey bu ma nekkoon nag Ousmane Sonko dama naan ko bu Mélenchon amee fulla ak fayda ñëw taxaw ni man maa porté le projet de loi bi tax tey góor ak góor mën a sëy sa France dinaa ni la man ma porté woon projet de loi pour que proposition de loi fii ci Sénégal ci assemblée nationale pour que góor ak góor bu ñu bëggee sëy ñu jàpp leen comme quoi c'est un crime Sonko bu waxoon loolu mbir ma jeex mais Sonko dafa nekk ci benn mutation Sonko n'est plus un opposant. Sonko est devenu une autorité dans ce pays. Deuxième personnalité de l'État. moo tax bi muy wax c'est ma gis Sonko nekk ci benn sujet pendant douze minutes les douze dernières minutes de son speech xam nga Mélenchon il a euh, il a parlé pendant quarante et une minutes mais Sonko discours la doon liir booy xool. ci li mu wax ci wàllu force française Cap-Vert li mu wax ci panafricanisme li mu wax ci waa as e loolu yëpp daf ko bindoon mais domaine góor jigéen bi ba mu fa ñëwee douze minutes yooyu yi mujj ci li mu wax foofu du woon discours mais dafa nii dañ ko toléré gere nañ ko danañ ko continuer gérer mais boo koy suivre xam nga nag ñun tamit journalistes yi parfois ay guerriers la ñu daal la neex la ñuy jël. loolu la ñu sempi mais boo demee vers la fin Sonko a parlé de la légalisation muy du am Sénégal parce que dëppoowul ak ñun ñuy dundee ça claire été nag euh, nit moom boo ko bëggee jekku faay bu mu la njëkk ubbil da nga koy song ah, ah. encore une fois il faut que ñun journalistes suñu arrêté di seetaan TikTok wala nekk ci lu ñuy sample boo bëggee euh, traiter benn sujet prends le sujet dans sa globalité nga toog déglu ko euh, boo jëlee Sonko ak Mélenchon lu ñu wax ça fait deux heures ay deux heures quinze minutes yooyu mais bu fekkee yow bëgguloo déglu Mélenchon va écouter Ousmane Sonko du début à la fan di nga comprendre li muy wax lan la pour man li gënoon important au moins Sonko a dit que ni kenn du fi légaliser lii di homosexualité man bi ma dégloo Sonko li ma gënoon amal njëriñ c'était li mu wax ci waa AES Doumbia Goïta euh, Ibrahima Traoré le Niger man loolu moo ma ëppaloon solo pa parce que moment bi ñuy def loolu mais Bassirou Diomaye fay dem na seeti Ouattara dem na Mauritanie dem na Guinée-Bissau dem na Gambie donc kooku nekk ci loolu après mu jóge fi ni damay dem Nigéria géants de la sous-région en tout cas au niveau de la CEDEAO damay dem gana mais pourquoi xooluñu pourquoi Diomaye jëm boor bi Sonko jëm boor bële est-ce que ñoo ko tey est-ce que dañu nekk ci benn stratégie de diversion yow tu es le souverainiste va gérer euh, nos amis pour euh, putschistes man ma dem gérer les papis euh, ñi nga xam ne que ñoom ànd nañu ak waa mais loolu yëpp stratégie la en terme de diplomatie boo xam ne dañ ko war a jàngat jàngataat pour man loolu moo ëppoon solo fuuf mbirum góor jigéen bi parce que nag ak lu mënti am góor jigéen moom Sénégal na parewuñu parewuñu pour def ko fi bés bu ñu jógoon pour ni dañ ko fi def te xalaatuma ko euh, loolu man pour xam nga xam nga xam nga li neex ci de wu góor jigéen mooy dañ leen di forcer et je suspecte certaines personne qui interviennent au niveau des médias que ni ñoom sax élément de langage yi ñuy waxee mbirum góor jigéen est-ce que du ay lobby homosexuel ñoo nekk seen gannaaw jox leen ko pour ñu koy wax parce que mbir plus nga siy wax plus nga koy banaliser waaw loolu moom lu leer la am na si ñoo xam ne ñi ngi siy wax fu prétexte bi taxawee ñu wax si mais parce que les lobby góor jigéen euh, en fait mës naa nekk dans un pays de la sous-région benn dame approché ma dañ lay yóbbu États-Unis delloo la tu vas deux mois boo ñëwee ñun ñoo la jox passeport bi ñun ñoo la jox oto bi ñun sa carte de presse rek la ñu soxla le matériel audiovisuel ñoo la koy jox fooy dem ci sous région bi da ngay dem en tant que journaliste mais ñun ñaar la ñu soxla il faut porter le combat de la sensibilisation pour ñu bañ a bundu góor jigéen ñi le combat de la sensibilisation pour que soxna yi di dem ñu leen di defal test euh, nu mu tudd euh, euh, du cancer de l'utérus nekk mu ne waaw mu ne ma et chaque quinze jours tu es payé à deux millions cinq cent de francs fa chaque quinze jours donc mois bi ça fait cinq millions doomu ndaw si moonu ma bu si dugg parce que sama yaay ñooñu lay liggéeyal lobby homosexuel ak l'industrie pharmaceutique bu dix femmes yu dem pour ñu defal leen test cancer de l'utérus ñaari wala ñett yi dinañ leen inoculer virus bi pour que garab yi gën di mën di dox li si des nag en tant que journaliste booy wax ñu lay déglu loolu daf leen di arranger ñoom les homosexuels mais boo bëggee xaalis da nga naan waaw pour te dire combien c'est ce lobby homosexuel est fort au Sénégal te nag da nga leen di fekk dans ñu tappi dans des sphères yoo xam ne yow mënoo ko xalaat. bo ku ku rappelé wu le le le procès de Maniankase rek ak ñëpp ñan nekkoon autour nga xam ne que ni ñii ñu am doole la waaw l'une de plus grandes entreprises de Dakar waa jooju ak ki nga xam moom mooy Maniankase ñu amoon problème euh, mais li indi problème bi yëpp mooy Maniankase dafa doon génn directeur commercial ba fii ngi am si seen diggante ñoom ñett loolu moo doon seen procès kan moom mënoon imaginer que ni tubaab boobu ak suñu mbokk sénégalais ba euh, jour bu ma rencontré waat dama ko xool loxo yi set wecc kanam gi ni mu ko wootee ma toog ma ni non kii moom bu nekkoon jigéen ku rafet lay doon nga xam ni que ñoom dañu nekk si beneen dimension tey li ñu bëgg mooy fair porter le le le le combat médiatique par des leaders d'opinion par des identités remarquables et ça bien nag bu ñuy waxante dëgg. Euh, euh, benn ba tey ci wàllu actualité bu ñu ci desee euh, démb ci conseil des ministres aussi gis nañ décision yi nga xam ni jël nañ ko fa fas yéene na ci dem en tout cas bi ci njëkk mooy ñu xoolaat convention yi nga xam ne moo lié suñu réew ak yenn ci ay entreprise étrangère lu jëm ci mine bi pétrole bi ak li nga xam ne moo di suñu géej gi en tout cas annoncé nañ ne annoncé nañ ne ko def nañ ko annonce bien sûr mais tey jii est-ce que loolu def ko dina nekk lu lu lu yomb parce que gis nañ ni régime bi bañ fi toogee boobaak léegi ay mesures boobaak léegi ñu ngi koy jël mais defin bi est-ce dina nekk lu yomb. man sama expérience bu ndaw bu ma si am damay rappelé wu l'affaire Hydro-Québec Elio bu Ablaye Wade Ablaye war est un avocat xam na bu baax la circuit mondial comment ça fonctionne il était très bien aussi mais bi mu rompre contra bi le Sénégal a payé 63 millions. 103 milliards aux Canadiens pour ñoom ñu dem Wade toog na presque 10 ans pour mu régler problème électricité Sénégal mu nekk problème quand Macky Sall est venu au pouvoir c'est je crois l'une des premières fois où on a vu un ancien ministre nommé directeur général en l'occurrence Mamadou Makhtar Cissé Macky Sall ni que je t'envoie au charbon demal Sénégal nga redressel ma ko dafa liggéey bu mucc ayib tey Euh, yaakaar naa ni li gën a yomb mooy convention yi nga xam ne signé nañ ko entre deux mille dix neuf deux mille vingt quatre yi si ëpp deux mille vingt cinq lay jeex mais ça reste un nañu bàyyi un an bi mu jeex ñu renégocier reprendre li ñu bëgg ñu def ko. waaw parce que waaw xam nga euh, boo réexaminer li si ëpp renégociation nga jëm. mooy renégociation boo xam ne que da ngay perte jaru ko c'est une perte de temps euh, on annonce les premiers barils de pétrole avant décembre 2024 je préfère que baril yooyu génn ñu am si li ñu ciy am après nag on dit à tous ses partenaires franchement 2025 on va renégocier ñoom ñu xam euh, daf si am par exemple tey boo demee Ndar ak Gendar plateforme bi ngay séen ñu teg ñun Woodside Cosmos Energy BP ñun ñoo bokk ak Mauritanie ñëw teg mais tey bu ñu waree renégocier lan la ñuy renégocier parce que si coproduction la ñu toll donc pour ne pas perdre du temps je préfère qu'on qu'on qu'on qu'on bénéficie des dividendes yi njëkk ñëw après maintenant on si penche nag pour lële mais puisqu'on a des spécialistes quelqu'un comme docteur Abdourahmane Diouf bi ñëw ministère leen de de l'enseignement supérieur il est très bon dans les négociations internationales parce que nekkoon na euh, OMC mais mën nañ leen càmbaraat xam à quel niveau le Sénégal à pêché à quel niveau nous n'avions pas bien négocié ñu aviser l'autre partie ni leen à partir de 2025 on va revoir le terme du contrat pour man loolu euh, c'est plus prudent euh, waaw c'est plus efficient que bëgg casser des contrat yoo xam ne kenn leen dese c'est c'est un an. oui xam nga euh, soxna Mariama dans tous les domaines d' activité chaque conseil des ministres Diomaye def naan nañ vérifier nañu auditer Diomaye neen nañu auditer transport public nañ auditer euh, mbirum élevage nañ auditer mbirum les finances de l' état nañ auditer lu jëm ci wàllu xaalis bi ñu dugal ci këyu ndaw yi démb nee na nañu auditer xaalis bi ñu dugal ci programme yi nga xam ni pour autonomisation des femmes la fu su nekk rek neen nañ audité waa mais nawut benn kuréel boo xam ne moo koy saytul loolu ñu bàyyi annonce yi te ñu jublu ci li nga xam ni moom mooy ñaar yi leen Sénégalais di xaar la réduction des comptes ñuy luubal ñu jëlee leen wax ak ñoom bu ñuy fay ñu fay bu ñuy tëddi kaso ñu tëddi kaso beneen bi mooy la réduction du train de vie de l'État et des denrées de première nécessité mais càmbar moom faw mu am maintenant nag bu yàggee. dafay nekk des effets d'annonce te euh, sénégalais yi man damay di wax nañ ko xool rek ci euh, les jeunes yaakaar bi ñu amoon yaa le 24 mars bi ñuy fal Diomaye mais boo gisee bateau yi gaal yi commencé di jëlaat le large booy di dem c'est parce que quelque part il y a une déception bu commencé di génn te il ne faut pas loolu ñu entretenir ko moo tax ma ni faire l'état des lieux oui mais aller vers l'essentiel et le plus important nga xam ni que ni Sénégalais yi moom la ñuy dund tey yaakaar naa ni loolu itam c'est extrêmement important. d'accord ba Diomaye Faye toog it boobu léegi nan nga gis peut-être def na ko ci démarche loo xam ni en tant qu'analyste gis na ni euh, fii mu teg tànkam xëy na baaxul ci régime boo xam ne ñu bëri am nañ ci yaakaar par rapport ak xam ni def na ko boobu léegi donte ne yàggul bien bon euh, lan la Diomaye def lu baaxul. Hmm, ban ban analyse nga ci euh, pour man euh, Diomaye préside le Sénégal mais mais c'est Ousmane Sonko qui règne Diomaye suñu président mais c'est Ousmane Sonko qui règne man loolu ma gëmagum ci xibaar yi ma am Diomaye composé gul sax son cabinet li nga ma fekk ma ko doon bind nii bëgg a génnee ëllëg dama toog ma xool ma ni mais gaañi ñoom dafa ñu de. lépp lu jëm ci wàllu koppar ñu ngi koy téyal seen bopp Diomaye président de la République Ousmane Sonko premier ministre euh, Birame Souleye Diop moom mooy ministre du pétrole et des mines nga foofu am na solo la fay dugg ci koppar inspecteur des impôts euh, nu mu tudd El Malick Ndiaye bokk Pastef porter la parole def prison ñu takkal ko bracelet et tout El Malick ñu yóbbu ko infrastructure infrastructure c'est que projet yi gën a rëy ci état foofu lay dugg moo taxoon Ablaye Wade dénkoon ko Karim Macky Sall dénk dénk Mansour foofu bu ñu la fa tegee rek yow milliards yi ngay gérer bu sax comprendre c'est que yow ministre des finances il est obligé presque chaque semaine di ngeen toog ñaar ba ñetti yoon ñu jël Cheikh Diba nga xam ne que ni moom ak ay rapport am ak Diomaye nit ñi xam nañ ko gis nañ ko à travers le foncier bi leen lié euh, Cheikh Diba ñu jox ko finance ak budget mais boo wàccee ci ginnaaw Toussaint Manga Lonase Lonase li muy dugal ci xaalis ci réew mi c'est que kuñ ko jox sa Bamba Massé moo tax du du ku nekk nga fay teg euh, somi seen wala kii nekk nga Demba Touré port autonome de Dakar njox ko Waly Bodian mais bi gën a neex bi ëpp doole yëpp yëpp nga xam ni foofu moom fa ngay contrôler lépp vue panoramique ngay am CDC Fadilou Keita donc ñoom les alliés jël leen yeneen yi ngeen seddoo mais koppar gi moom ñun ñoo koy téyal suñu bopp. c'est une bonne stratégie parce que ñoom li ñu mën en tant que inspecteur des impôts c'est de collecter de l'argent nan la ñuy def bëgg téye xaalis bi indi ko ñëw xam nan ñaata moo fi nekk foofu seen ay nit yu ñu wóolu lañu jël teg ka fa loolu moom bokkuñu ko séddoowuñu ko ak kenn maintenant ay intérieur ak défense ak justice ak jox leen ñeneen ñi mais lii moom ñun nañ ko tëyal suñu bopp danañ xam lu fi dugg lu fi nekk lu fi génn parce que dañu toll ci budget programme les Sénégalais l'oublient budget programme c'est que euh, moo tax foofu la leen Macky Sall tënkee en fait la ñu kii ba def mille milliards de budget loolu la ñuy appliquer mënuñu ko génn alors euh, man pour man c'est encore très de dire que Diomaye teg na tànkam fii fu baaxul parce que itam nit seedeel ka rek li nga xam si moom dama seetlu ni contrairement à tous les autres présidents Diomaye kilifa diine bu mu toogal da sëgg xam nga ndax seetlu nga lool si këru diine yi mu dem yëpp ku mu si dem da ngay sëgg parce que les gens se rendent compte que de la virginité yaru na tey na dafa leen di jox ciru yéen sama bàyyi ngeen bu ñëwee da nga koy xool xam ni yow kii sa doom la yàlla def mu nekk président de la république euh, moo tax ma ni pour leur il est sur une bonne voie il assume sa charge de président de la république te chaque jour nga gis ne Diomaye mi ngi gën a fees place bi mu ngi ñëw dama ragal li dal Macky Sall dal Diomaye Macky fu mu ñoree foofu la ay déli am mu dem Diomaye la première année mën na kafouiller mais teeyam ak dalam mooy maquiller euh, yenn insuffisance yi mën a am si moom mais pendant ce temps il laisse à Ousmane Sonko euh, le soin de dérouler maintenant euh, tu peux être contre Ousmane Sonko mais au moins nañ ko nangu li mu ngi liggéey bëgg na parce que quelqu'un qui passe plus de quinze heures au bureau chaque jour que Dieu conseil interministériel yi mu fi convoqué yëpp heure bu nee 9h il est sur place à 9h moins te bu ñëwee il va tout droit à l'essentiel ku nekk bu lay jox maximum 5 minutes de parole ngay am bu ñu paree mu synthétiser jël les mesures ne ayca on y euh, ba ci bi ñuy jël les officiers la chaque ministère envoyé nañ fa benn officier ni ko demal nga ñuy xoolal donc njort mën na rafet yaakaar mën na si am maintenant on va voir ce que ça va donner. parce que itam euh, euh, nañu waxante dëgg fii Sénégal koo fal mu nguuru waaw koo parce que nit ki boo ko mayee tuuti espace mu def lu mu warul woon def je sais que nag am na ay réformes yu ñu bëgg te xam nañ ni ils ne sont pas majoritaires à nationale booy rappelé wu les différends qu'il y avait ni mbir mi digg dëgëre woon diggante Abbas Fall ak waa Benno moo tax tey ñu ni bu Amadou Ba demee ñu bari ci Pastef wax boobu la ñuy wax Amadou bu demee puisqu'il est plus conciliant il est plus convivial il est plus ouvert est-ce que duñu jël négocier ak Abass pour teg ko moom président groupe parlementaire waxtaan ak waa Benno Bokk Yaakaar yi ñu may ñu ñu mën a jël décision yu ñu bëgg pour des des mutations profondes si yooyu la ñu nekk euh, et pour l'essentiel ils sont pour l'essentiel c'est des gens yoo xam ne que ni ils n'ont jamais exercé des responsabilités à ce niveau de l'État donc c'est normal qu'il y des errements mais on va corriger au fur et à mesure parce que le ministre euh, Daouda Ngom keroog bi mu demee euh, fële nga xam ni que ni moom mooy euh, dans l'est du pays dafa waroon dem San Samba mu dem ñu yóbbu ko foo xam ni amul exploitation presque terrain vierge la woon après ñu ne que mais monsieur le ministre avion baa ngi lay xaar il a des impératifs tu es obligé nga dellu Dakar donc il est rentré comme ça fa mu waroon dem demu fa moo tax ma ni euh, li nga ma doon laaj sànq les audits oui mais sur le terrain ils n'ont qu'à écouter les Sénégalais parce que y a des choses qui se passent encore sur le terrain yoo xam ne que ni faw ñu taxaw si parce que les chamboulements jeexagul ça va se faire au niveau de mais ça va surtout surtout se faire au niveau de l'administration territoriale Il y a pas mal de gouverneurs, de préfets et de sous-préfets qui vont devoir bouger. Euh, au niveau de la gendarmerie gis nañu la crête changé nañ ko euh, fay moo ñëw ak Pape Diouf mais les légions foog mu am ñu bouger commandant de légion au niveau de la police foog mu am ñoo xam ne que ni dañuy bouger aussi yooyu yëpp euh, ça permettra de mettre les hommes yi nga xam ne moom la Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane ko wóolu pour ñu mën a dawal ñoom seen vision politique. question c'est par rapport ak l'avenir euh, de l'opposition aujourd'hui parce que gis nañ depuis hier euh, waa APR ñu ngi dem saisir euh, <laughs> la balle au rebond pour un exister parce que xam nañ ne bu ñu ko deful bon naturellement kenn tuddatu leen tey jii ban chance la ñu am ñoom waa APR est-ce que mënees nañu jàpp ni opposition bi nga xam ne xëy na am nañ ko boobaak léegi surtout ak l'avènement de Sonko ay ñoom est-ce que mënees nañu amaat boobu opposition et le cas de Amadou également qui aujourd'hui partagé entre l'opposition ak le pouvoir ban décision la war a jël fi ñoo ni ku ku iñaane sa ndono sa déewin ñaaw pour moi la c'est du passé Amadou Ba est-ce qu'il a cette endurance là pour euh, revenir ñëw nekk opposant bon hmm, j'en doute vraiment parce que nag opposition dafa metti li nga denc yëpp di ko gox te faw ngay dem seeti Sénégalais yi toog waxtaan ak ñoom xëy na Amadou Ba li mu commencé ci carrière am metti woon na trop am na jaar-jaar yu metti en tant qu'être humain tout court mais est-ce que le poids de l'âge va lui permettre hmm, d'être carrément dans l'opposition ou d'être chef de l'opposition man man l'opposition véritable de Pastef gisewuma ko ci APR pour man l'opposition véritable de Pastef sortira et de Pastef et du néant des Sénégalais qui sont là qui sont battus pour que Pastef accède aux affaires bu ñu gisulee lu ñu xam ces Sénégalais là vont se réveiller et se dresser contre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye la véritable opposition itam bi mu quelque que soit opposition buy bourger buy bu buy fël nañu ñaan yàlla Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko bañ séparé parce que ku fi mënti génn nekk opposant tu es bon tu te bats def li nga war a def opposition républicaine xaxaroo yaa ngi wax ñoom li ñuy def lii baaxul lii baaxul parce que y en a qui sont opposés jusqu'à la fin ils n'ont jamais été arrêtés te dañ doon nekkoon dans l'opposition je donne l'exemple d'un Bougane Gueye Dany parce que heure boo ko waxee def naa la balaa may wax dara dafa may wóor ni lii teg naa si sama loxo ba pare bon mais ñooñu ñëpp lu ñu fi mënti liggéey ci opposition d'ici deux mille vingt neuf bu ñu demoon parce que Ousmane Sonko xarañ na ci wàllu politique yeewu na yeewu boo xam ni moom ak Bassirou Diomaye fay bu ñu bëggee véritablement téyewaat nguur gi des fi mën nañu dem bàyyi deux mille vingt sept ils se séparent. kii jaar ni kii jaar nee Bassirou va dire je suis encore candidat Sonko ñëw il s'oppose à Bassirou Diomaye Faye man je n'exclus pas man dafa nekk sama xelu bopp j'ai jamais voulu le dire mais man je n'exclus même pas que Bassirou Diomaye Faye dugal Ousmane Sonko prison 2027 2028 qu'il soit libéré pour revenir comme candidat chef de l'opposition pour récupérer le pouvoir en parce qu'ils son politiquement ils sont capables de tout c'est que c'est un duo fusionnel et complémentaire kii c'est l'eau kii c'est le feu et pour garder ce pouvoir là am na fu ñuy toll xam nga Sonko ni mu def ba ni nañu jël Diomaye mu nekk le plan B te dafa waxoon mësuma am plan B te du mësa am am na fu ñuy toll Bassirou pour luy rendre la monnaie bañ keneen fokkati nguur gi su ñoom il est capable d'envoyer Ousmane Sonko en prison mu dem toog fa la mu doon wax rek 300 mètres carrés laa am climatisé fa abré fa fañ ko yóbboon ma Bassirou jomay fay mën na ko fa dellowaat à la fin du du mu dem dóor fa benn un am Sonko indi Sonko et su boobaa di nga dégg beneen discours du genre Sonko n'a jamais été élu Diomaye la ñu fal moo doon décidé Sonko il ne faisait qu'exécuter la vision de Diomaye su yàggee dañ naan vision Diomaye moo baaxul woon il n'a pas supporté le projet correctement celui qui porte le projet ki ko moom ki ko tëgg mooy Ousmane Sonko nañ ko jox pouvoir moo tax euh, ñi yeewu trop trop trop ci opposition bi déggatoo leen Anta Babacar Ngom n'a même pas fait de tournée pour remercier ses militants Bougane est dans son coin Déthié Fall est dans son coin Mame booy Diao est dans son coin dama lay jox rek ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ak ñoom génération waxuma lay Idriss Seck ak yooyu Barthélémy Dias mi ngi xool par rapport à Khalifa Sall qu'est-ce qu'il va devoir faire Khalifa a un coup il percute le mais Bart voudrait que quand même Khalifa lui cède le terrain pour une fois moom mu dem au charbon pour voir jàmmarloo ak ñii moo tax ma ni la euh, y un renouvellement générationnel qui se fait mais Sénégalais yi li ñu bëgg depuis Abdoulaye Wade c'est de se départir de se défaire des politiciens professionnels loolu moo tax Diomaye ñëw au pouvoir te bu fekkente ni kenn le duo Diomaye ak Sonko réussir ñu en 2029 tu auras un président boo xam ne il va sortir de nulle moo tax gëmuma ni waa APR amati nañu chance mais dil di xool ci biir APR am na ñoo xam ni Souleymane Ndiaye bi nekkoon SAPCO euh, dafa démissionné démb de Benno Bokk Yaakaar nee na nekk fi pour pour toppaate rek donc am na mouvement am day jël yoonam keneen ak keneen ci biir APR dañu nar a jël seen yoon dem parce que y a des jeunes je donne l'exemple d'un Pape Ibrahima fay bi nekkoon Feera te mu doon ànd ak Mansour Faye il n'est pas très connu moom ak waa Pastef c'est presque le même tempérament c'est la même génération man ñooñu laa gën a gis que ñi am ans 63 ans 65 ans nekkoon ak Macky vomi par les Sénégalais et que ñuy dellu si c'est moo tax ñenn ñi nekkoon ci ci Benno am na si ñoo xam ne ñoom jël nañu seen retraite politique définitivement ils se disent on a qu'à laisser à cette nouvelle génération ñu doxal parce que ma tëje loolu rek soxna Mariama Macky Sall le président Macky dafa waxoon fam ay jeunes yu mu waxoon mun leen benn service lay rendre Sénégal je prendrai tous les vieux yi fi nekk depuis 1960 je vais les envoyer à la retraite su ma defee loolu nag ba dégager leen yéen yéenay des ak seen réew yéen les jeunes battez-vous Ousmane Sonko mi ngi dem mi ngi jël yoonam dem leen ngeen fekki ko ngeen ànd xeex ak moom jàmmaarloo ak moom pour que buy am dara ngeen di am dara tey Macky Sall l'a fait tey on plus imaginer Euh, Moustapha Niass mu fi dellu si waat ñooñu pare nañ si ay Aminata Mbengue Ndiaye et donc il faut qu'une nouvelle génération arrive et cette génération là ñi si ëpp chance mooy ceux qui sont vierges ceux qui n'ont pas été dans le système ceux qui n'ont jamais bénéficié des privilèges de l'État te mun taxaw ak Sénégal ni leen mos ngeen ñee mos ngeen ñi mais mos leen ñu xool ñun qu'est-ce que nous pourrons faire par rapport au devenir de ce pays là. Euh, donc mi ngi noonu merci à vous chers internautes tey Ben Makhtar Diop le grand journaliste moom la ñu dalaloon suñu émission euh, tribune politique jàngatam ñeel euh, dernière actualité jëm ci langum politique bu Sénégal ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax mais yéen également ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a ngi doon topp boobaak léegi alors on se donne rendez-vous semaine prochaine incha allah ci beneen jotaay beneen invité ñu waxtaanee toujours lu jëm ci tolluwaay réew mi jaajëfal bu baax baax go mi nekkoon derrière la caméra donc femmes et au